kon yow da nga ñëw fii pour euh, pour yokk sa liggéey yokk sa xam-xam euh, yokk coup bi mu gën a fort. yeah parce que xam naa ne li nekk suñ kanam am na promoteur yu bëri yu may contacter. kon du ñu mel ku mel ni Sow production muy wax ak man euh, ku mel ni Jamaïcain muy wax ak man. ci yan làmb la wax Pape Abdou faal muy wax ak man xam nga mu nekk promoteur yoo xamante ne tey jii nii bu ma toogee Sénégal boo xam ne ñoo ñu ngi may contacter kon war naa dem Amérique yokk sama doole hmm. ba bu ma ñëwaatee Euh, indi beneen anam bu bees loolu moo moo tax euh, ñu ñëw fii. mais promoteur yooyu yëpp ban ban ban ban ban làmb lañ lay jéem a contacter pour tegu ko. waa bëri na parce que Sow mu ngi wax sama diggante ak euh, Malick Niang Pape Abdou Fall bëgg na sama combat ak Moussa Ndoye mm-hmm. xam nga Jamaïque mu ngi may proposé ak yeneen yeneen yeneen yeneen adversaire yoo xamante ne ni ci man la des parce que boo boo waxee boo mu boo mu proposé ki ki nga xam ne war naa bëri ak moom rek. Mhm. amul problème man bëri moo tax ma nekk fii quoi. ñu ñëw sa digganteeg Forza. dégg xam na ni kuy ku yi moom sa ku bi moom yaa ngi koy tudd boobu ba léegi waaye tamit Forza xaw na laa rey nag xaw fa Forza moom laal laal na laal yu du du ma du ma yu métti. <laughs> non <laughs> euh, dañ dóoran dañ xeex. Mhm. yaa dañ xeex parce que li tax dañ xeex mooy bi muy bëreeg Forza. boobu noonu bugguma ñëw rek euh, xeex ak moom. Mm. aussi boobu noonu toog naa presque at boo xamante ni sama combat dafa jafe woon trop. Mm. ku dem seeti nga ne non duma bëre ak moom xam nga ay ñoom Moussa Dioum concert googu yëpp dem nañ leen seeti ci moment boobu nangu ñëw bëre ak man. Mm-hmm. ma xam ne xëy na bon door yi may door gars yi moo métti. Mm. léegi kon comme yàlla dogal na amaat naa combat nag force dama ko war a jàpp daan ko. mais du question ne dama war a ñëw taxaw xeex ak moom affaire yooyu déedéet non ñëw ma pour xeex. moo tax bi ma demee combat bi demee noonu. Hmm, boo xoolee maanaam maanaam da nga dem ñëw pour xeex Forza indi xeex. waaw boo xoolee man dama ñëw pour pour pour jàpp ko daan ko moom mu ñëw samp xeex comprendre nga boo xoolee li muy dóor rek damay baare bu dóoree ma daw jàpp. bu hmm. jéem a bu rek moom daan naa ko sax deux fois yoo xamante ni euh, boo seetaanaatee combat bi daan yu leer la comprendre nga. Hmm. mais nag arbitre mooy metti terrain. Mm. moom mooy wax euh, mooy joxe victoire mooy xañe victoire man saa yu ma ko daanee damay déglu arbitre mu woowaat ma ne ma kaay leen bëre. Mm-hmm. yaa ngi dégg ma ñëw bërewaat bi ñu bëree euh, troisième action bi ci la sama loxo bi débuwaate. Mm. mënatuma mënatuma dem. ñu jox ko victoire. est-ce que du booba dóor yee métti ba loxo bi déboîté. non non non loxo bi loxo non non dóor yi bokkul. kër Forza da la dóor ba mujj gi man sama yaram sax dafa mujj di daw. man dóor yi mais Forza boo ko laajee dóor yi dóor gars yi yaakaar naa ni bés boobu lañ la ko fay. boo ko laajee. Hmm. da wax combat bi gën a métti ci combat ma ak ma ak moom ñoo ko bëree. parce que boo xoolee premier round lañ def deuxième round bi ma ñëw samp xeex parce que premier round bi dama doon moytu. pour jéem ko jàpp daan ko. Mhm. mais bi ma xamee ne dafa indi xeex nag ci laa sama bu taxaw ñu raak. Mhm. comprendre nga ci la ma a joxe cer xam ne kii nii. Mhm. Euh, xëy na daf ma wuyuwul ci li ma koy woo mais. moo ma dàq a dóor ba ma ko nee réel ne ma ko ne ko ci la réglé. mais laataa nga naan réel mais réel ah, yooyu moom yooyu moom ça dépend ci ni combat bi dikkee rek xam nga euh, waaw. tey tey ñu ñu génn ci Forza dem euh, ci ki nga xamante ni la la laataa sax ñuy jàll euh, pare nga pour bëri waat ak Forza. waaw waaw bari naa moom parce que. ak dóor yu la dóor yëpp dañ am règlement de compte. règlement de compte règlement bi ñu am mooy. dama ko dàq bëri dàq ko xeex bug ko woon sénégalais te suur boobu niñ bëree ñu bëri dañ jàpp xëy na ne moo ma dàq xeex wala moom a dàq bëri affaire yooyu noonu te du loolu daa am xëy na fu ma tegoon combat bi te combat bi war woon a yegg foofu. man de man de dama ko daan ci one minute. Mhm. bi arbitre ne prix dama waroon a dox ci kawam dóor ko ñaari indee yu baax. jàpp daal moo tax defoo non mais. Forza may la sax fa ngay nekkee foofu di une minute ak deux minutes dala faa fekk jaxase la dóor lay ku ba mujj gi man dama laa mujj yërëm sax. non mais loolu loolu loolu du combat. loolu du combat parce que li tax du combat mooy euh, bu fekkoon ne bu fekkoon ne Forza lim indi laa indi woon jour boobu non combat bi du mot trois minutes te daanu waa mais lan moo tax nekkul combat te yow fii nga wax léegi nii Mali ama Mali ñaar da doon dóor nit ñi ñuy daanu ah, mu dem si Ama Baldé nga ne ñaata minute. kan la fi daan kan la fi dóor mu daanu. Malick ay kii rek la doon jàpp ay ñoom. Malick ñu fi dóor non da ngay déglu ah. ay ñoom Adama Diouf la doon jàpp xam naa ñoo xamante ne moo boo xoolee moo leen xaw doole tuuti en même temps ñooñu moo a yeewu ci côté door parce que ñoom bëri simple la ñuy def. Malick dóor mu ni club la de maanaam da ngay daanoo ndëpp ndëpp ngay daanoo. Malick bu bëggee awas baa ngi Sénégal di taxawaalu na ko lekk ñu dóor ko mu wàcc léegi mu leer ci boppam Malick boo fekkee danga pare pour bëri ah awas baa ngi Sénégal di taxawaalu jël ko ma ñëw defar la bagage léegi du yàgg ok. Ah. super non. amul ma dem da ñëw. climat bi neex na de. waaw mais climat bi bu neexee toog nii sa fauteuil jàkkaarloog sa télé di bu neexee ah? dañ xam li nekk si ñun. Ah. ñun daa am luñ présenté si làmb. yaa ngi dégg. Mhm. am euh, fuñ tollu euh, nit ñi ci làmb. Mhm. kon mënuñ ñoo génnee ci làmb ñun. ñun ñooy làmb. Mhm. dañ cee def lu ne. waaw kañ si mënuñu ñoo génnee ci làmb boobu noonu laay ñëw ak yow euh, gis nañu ni ci kaw yow am nga gabarit bi. mën nga bëre mën nga dóor mën nga xeex mii lan moo tax chaque jour ñi dégg si kaw di du la si dégg. waaw mais xam nga yàlla mooy mooy mooy binde noonu ay mbiram. ma dafa am nit ñoo xamante dañu kóol parce que souvent man sax rarement nga may dégg ci média may wax rarement man bu ma defee li ma war a def ba pare si làmb après man maa ngi continuer sama liggéey xam nga. mais nag lamb coow la del del génn di créer ay coow comme gars yi. non noonu la fay demee sax noonu la fay demee xam nga mais comme souvent da ngay toll foo xam ne sa temps moo la ko dut may. Mhm. comprendre nga léegi loolu moo tax xëy na liñ may dégg si média beeg affaire yooyu nu bëriwul mais li fi ñi ngay ñi ngay wax ñee ñoo nekk ci kaw li ma fi def defuñu gën walam comprendre nga. man mooy ñi mooy ñi nekk ci kaw. 25 combats laa def laa def laa def. bëri nga 25 combats 25 combats. ñaata victoire 19 19 victoire. 19 victoires ñaata défaite 19 victoires 4 défaites am 200 verdicts. Hmm. loolu lool loolu lool loolu loolu ku ko def ci làmb daan naan daan naan ku lu fadil. par palmarès gënu koo leer. non gënu koo leer. comprendre moo tax ñi si kaw duñ la jël la moo tax bëree woog ñi si kaw la moo tax dëggaloo sa bopp jéem yëg ñi jéem si kaw bëri gaay yi ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo ñoom Guy gi. ah Balla mosuñu dox sama combat ak moom. Euh, Modou Lo mosuñu dox sama combat ak moom mais guy gi bi ma jëlee kalaaf bi moom la Gaston njëkka a seeti guy guy gee gën gën a ragal ku gën a ragal ci àdduna guy gee ngay ngay ngay dimbale moo gën a ragal ci waaye guy guy gi guy gi kenn du kenn du wax si. kenn du wax ci moom oh. guy gi wax. oui ma Etienne. rek mi mujjee wax si moom sax mujj gi dafa dégager responsabilité dem ci. tey resto lay ragal la. gi maak moom arbitre bu ne prix gën sama diggante moom combat bi ma trois minutes ma dóor ko mu wàcc li muy bëre xam naa ko day talal loxo yi ut si ma ñemewu ma. déggoo ma de xuux du ñu yëg foofu ay buddi yi nii déedéet guy gi arbitre prip lay def mu ne la nii baaram yi aussi la ngay xool bu may dajeeg moom lamb ji di jeex moo gën a ragal ci àddina moom la njëkk a ah, seeti. super étoile gis nga guy gi bàyyi ma fi ah, dem jëli sos comprendre nga. Hmm. te boobu noonu sos mu ci ay difficulté moo moo moo moo lay won ne gars yi dañuy soob mais xam na ñu war a bëreel mais duñ bëre ak ñoom parce que dañu xam ne buñ bëree ak ñoom duñ fa jalee dara yaa ngi dëgg. mais guy gi pourquoi pas bu bëri yow du fa jëlee mais guy gi lu mu mën ci man. mais guy gi lu mu mën si yow bëri na guy gi mën na la sempi ba si kaw dóor si suuf. dóor mu daanu sax mën na fa am. man du ko man du ko ñuy sempi non dóor mu daanu bu fa amee man maa koy dóor mu daanu mais guy gi du jàkkaarloo ko man sax di xeex. guy gi day croiser les bras ragal non la. ragal la. comme ram non guy gi ragal la. guy gi xadaram ay jatam. guy gi bu dégagement guy gi rek xajul si yow nga ne ragal la. barki yaa rasulallah ñemewuma li ma hmm. lu weer la. liñ ko seeti ci ay combat ngir sama diggante ak moom dafa bëri. lan moo tax nanguwul jël sa avance. no dafa xam ne bu jëlee sama avance dinaa ko dina dinaa ko duma duma yu metti dinaa ko daan. Hmm. comprendre kon kooku noonu jël sama combat day tegi dem seeti ñeneen gars yi nga xam ne ñoo gën a nooy. Hmm. daan leen. ñu ñëw loolu xëy na mën naa ne moo leen indi comme fi nekk. mais man maa nekk benn mbër moo xamante nekk si làmb doo moytu kenn ku ñëw nga ne la ñëw ah, na ñëw ñu mais mais du loolu tamit ba bokkul bokkul ci li la tardé ci làmb bu bu fekkante ni yow yëpp war nga yéeg nga ne rek man bàyyiwuma kenn ñi si ginnaaw ñëpp boo demee ñi si ginnaaw ñi si kanam naan kii yeggagul si ñun genre yooyu noonu. waaw parce que lamb calcul la man maa nekk koo xamante ne ni maanaam dama toll woon si lamb foo xamante ne ni képp ku ñëw damay jàpp ne man maa la mën comprendre boo nekkee boo nekkee sama qualité boo xam ne war na xool naa boo xam ne war nañoo mën a bëri rek buñ doxee combat bi kase musuma booleeg benn promoteur. Mhm. ku ma seet si wax ma koo xamante ni maanaam euh, yoon la ma bëree moom rek dama la wax pare na dama seeti ko boo bu d'accord rek amul problème am nga komba man noonu laa noonu noonu laa doon doxale sama life. Mhm. sa diggante gi Gris Bordeaux. no Gris euh, Gris maak moom bokkuñu ay catégorie parce que mën naa ne moom VIP la ñun ñoo ngi jéem a yéeg ñoo ñoom ñoo ñu war a mun a may loxo. est-ce que du loolu mu bokk na si li la tàddeel ci làmb bu fekkente ni da nga war a xool fu kawe nga jéem fu yóotu. boo toogee nga ne kooku VIP la do maanaam koy kii maanaam dañ leen di woowee VIP comprendre nga. Mhm. ñoom la ñuy woowee VIP ay ñoom. ba la fi def loo def foofu laa jëm si. ñooñu la ñuy voyé VIP mais boo calculer samay samay samay samay victoire calculer victoire Gris Bordeaux li ma fi def man mun naa koo génneel asaka mën nga ko génne la. asaka. comprendre maa ko ay victoire maa ko ay combat. mais Gris Gris Gris Bordeaux Gris Bordeaux xeexkat la yow xeexkat nga pourquoi pas yéen ñaar seen làmb mun a taxaw. mais kooku promoteur yi dañ si war a teel a jóg sax kooku kooku combat la yow li ngay xeex. yow li ngay dóor si nit ñuy daanu kaaw yeeg yu ni mel. Gris tamit di xeexkat bu mag. non Gris du ma jël parce que li tax du ma jël mooy maanaam. Euh, nekk naa booy boo xamante day ruus euh, arbitre suuf li ma dóor ko mu daanu loolu noonu day des ci boppam. yow xanaa ñëpp la ragal. no xam nga li problème bi. <laughs> li problème bi nga ji jeexal làmb ji yow yow ku ñu tudd ku ñu tudd da laa ragal. non c'est-à-dire boo déggee ma wax loolu. Euh, hmm. écrit yi nekk Dakar amul fenn foo xamante ne maanaam sama avance taxawaaluwul fa. te duñ ko duñ ko jël. ci Gris waaye Fass laa njëkkee Fass Lagros jox nañ ko sama avance mu bañ Papa Sow jox nañ ko sama avance mu bañ comprendre nga. Mhm. Gris Bordeaux xëy na mosuñoo dox sama diggante moom mais buñ doxee sama diggante moom ci moom la des. eh parce que defu fi lu ma fi deful. lan na fi def te defuma Bordeaux dafa ñeme xeex de. man ñooñu laa bëgg man bëgguma mbër yi nga xamante ne arbitre day suuf li gaayan xool nga naan ni di jéem foo jàppandoo ak affaire yooyu déedéet arbitre day prip xool ku yi tag waaw man yooyu laa bëgg. la moo tax doo laaj ñooñu doo laaj ëmm seen pourquoi pas nga bëri ëmm pourquoi nga bëreeg Balla Gaye pourquoi pas nga bëreeg Lac de Guiers. xool si ñoom la des mama bii nii. Hmm. Balla Gaye Gris Bordeaux Modou Lo Bombardier ñëpp si si ñoom la des mama bii nii comprendre nga parce que yokk naa sama doole ba gëm naa ne kum képp ku ma ci jàpp war naa laa mun a def li ma bëgg yaa ngi dégg hmm. te amul kenn ci ñoom ku ma jaaxal. mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di jaajëful baax a baax ngeen si doon ànd ak euh, jantal animateur best of animateur in the world fii ci New York ATM Seck euh, defe naa ni ñi ngi ci daanaka ci càppaandaw li gis ngeen ko naat mbër la champion la mën na xeex mën na bëre am na gabari bi toll na ni mu war a toll defe naa ni làmb ji kenn kenn kenn kenn waru ko cee teggi kenn waru ko cee kenn waru ko cee daw na mbëri bëri bëri seeni biir ndax ñoom ñooy mayante xaalis seen biir euh, naka noonu di bëggee bu baax a baax a baax ki nga xamante ni euh, moom moo di euh, Samuel Sarr di ko bëggee bu baax a baax Pape Ba maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di bëggee mbokk yi bu baax ki nga xamante ni moom moo di Mohamed Bàcci Gumbala maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee bu baax a baax Xaadim An di bëggee Youssoufa di bëggee képp koo xamante ni yaa ngi safoo di bëggee di seetaan li nga xamante ni moom moo di wasaare lamb maa ngi lay bëggee di la ziyaar bu baax a baax laataa loolu euh, ñu daal di ñu di bàyyi euh, sunu sunu sunu sunu mbër mu mu am lu mu ci wax ndax defe naa ni am na lu bëree bëri loom mu te ne denc na ko euh, su ko defee moom dina dina dina wax ñi nga xamante ñoom ñooy ay adversaire am ñi nga xamante ni war nañoo jël li nga xamante ni moom moo di avance am muy tàggatoo. waaw Ameth xanaa di sant bu baax rek di wax waa Sénégal seen mbir a ngi nii di préparer boppam di xaar combat. Mhm. Euh, di gërëm bu baax ñi ma dëkkal parce que ay nit ñu baax lañ mhm. ki ma ki ma fekk si fii nii ci New York maa ngi koy gërëm bu baax muy euh, am di jàmme mhm. maa ngi koy maa nuyu bu baax Ablaye fay euh, ak Ibrahima Tine ñi nga xamante ne ñoom la bokkal kër gi fii nii maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant mhm. di leen wax ne vraiment gis naa niñ may jàppale di nuyu waa Sénégal bu baax dafa am sama grand yu baax yu nekk foofu mënu ma leen a sant ku mel ni grand Etienne. Mhm. ak jaw jaw euh, bu géejuwaay maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant ak sama papa bu baax ñu koy wax Mor. Mhm. Euh, Mor Ndiaye. di nuyu waa Sénégal bu baax di nuyu sama jabar sama yaay xam nga nuyu euh, sama benn mag bu baax ñu ñuy wax waali Faye mhm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Sénégal di leen wax ne daal. bientôt ñoo ngi ñëw Sénégal te buñ ñëwee <clears throat> nañ indi leneen lu bees loo xamante ne nii mm. euh, bëgg nañ supporter supporter yi gis seen bopp mm. euh, bég bu baax a baax di nuyu nag sama fans club bi nekk Guédiawaye mm-hmm. euh, maa ngi leen nuyu baax a baax a baax Mori Camara Gora jaañ Assane xam nga Pape Diène mm-hmm. Signe Mbacké maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu nag sama mag sama mag bu baax mu nekk géejawaay ñu ko wax Karo Sarr mhm. sama jigéen laataa ñuy continuer ci gërëm yi euh, ñu wax tuuti ci ki nga xamante ni moom moo di Siteu ak MMA bi nga xamante ni moom la jóge euh, victoire bi bi mu fa jëlee waaw Siteu dañ koy félicité bu baax dañ koy félicité bu baax di ko ñaanal loolu euh, MMA bi muy def nii mu dem bo am ci li mu bëgg mhm. parce que li tax mu dugg ci moom moo ko xam kon dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mu ci jëlee rek mu jig mu jig ko jig ay mbokkam te yàlla defal ko ci lu kawe njortam euh, di wax ne ñun itam ñu ngi préparé euh, di xool ban ban yoon la ñuy jaar. pour mun a dem MMA parce que tamit yow xeex pour pour mun a defi MMA parce mm-hmm. que boo xoolee comme Sénégal gars yi dañuy daw avance bi hmm, ñu ñëw fii nii xam nga jéem a xool ñun itam nan la ñuy def ba mun a defi MMA quoi. Mm-hmm. Hmm. loolu am na solo am na solo parce que boobaak léegi euh, na promoteurs yi nañu xoolaat bu baax a baax nañu jéem a tëgg làmb yi la euh, combat yi euh, mbër yi nekk ci kaw nañu wàcc ci suuf jox seen rakk yi seen chance parce que ñoom it bañ bañ fa bañ fa tollee dañ leen joxoon chance te fi mu nekk nii làmb ji li li nga xamante ni moom la ñuy gis nii boobu mooy mun na indi sooxe maanaam du ñu ne day yàqu waaye sooxe mun na cee am parce que bëri na ci bëri bëri bëri bëri ñi ngi génn ñii ngi dem di moodu moodu ji ah ñii seen xel ñi koy def ci MMA mais nag ñun am nañu loo xamante ni moom la ñu am moom la Sénégal bëgg moom la ñuy seetaan supporters yi nga xamante ni ñooy topp Super Étoile ñiy topp Balla gay ñuy topp Eumeu Sène ñoom ñëpp bu ñu sañoon làmb dañ koy tëggee ca Sénégal ñu koy seetaan waaye bu mbër yëpp génnee dem MMA euh, loolu defee naa ni dina dina nekk lu lu lu doy doy waar mënta ñàkk. mbëri dem ci MMA bi bëre fa lekk fa seen wàll mais tamit nañuy góorgóorlu ci li nga xamante ni euh, moom moo jëm ci wàllum làmb ji euh, jox leen seen àq ak ba ñoom it ñuy mën a bëre euh, ñi si suuf tamit di mën a bëre képp koo xamante ni am nga licence nga mën a mos dara ci li nga xamante ni moom moo di làmb ji di si profito di bégee baax a baax a baax di ko féliciter Wally Seck di ko féliciter bu baax a baax a baax gis nañu fi nga xamante ni moom moo di doom ba ca Paris def na ko doom macha allah ñu ngi koy féliciter félicité bu baax a bax ñu bàyyi la ba tey nga daal di continuer sa gërëm. waaw xanaa rek euh, di wax ne euh, yaakaar naa liñ waroon a wax wax nañ ko. Mhm. di gërëm rek supporter yi bu baax di leen wax ne daal seen mbir a ngi ci jàmm xam nga muy mhm. entraîné mu ngi waajal boppam. Uh, di sako seen ñaam chaque jour di leen wax ne daal xam naa namoon nañ waaye man maa leen raw. Mhm. Euh, di leen sant bu baax a baax a baax ayca kon mbokk yi jërë ngeen jëf mu nekkoon euh, li nga xamante ni moom moo di wasaare làmb ñu doon leen ci ànd ak euh, champion bu mag bi ñu toogal ñu gën koo xam ci super étoile euh, kenn ku si nekk dégg nga lim wax ci làmb ji ñi nga xamante ni ñoom la dut baaraam ne dañoo war a bëreeg moom nañu daal di fexe jéem a bëreeg moom Malick Malick Niang comme moom boobaak léegi yàgg na ci kujje gi mënut fexe ba am combat. comme combat ngi nii taxaw na euh, defe naa ni yow yaa si des ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen fàttali rek di mun ngeen di euh, bës cloche bi su ko defee euh, ngeen mën a am ngeen mën a abonné wu su ko defee saa bu ñu dugalee vidéo ñi nga xamante ni ay star lañu ñi nga xamante ni ay champion lañu ci wàllum làmb ñi nga xamante ni ñi ngi ci politique ci li mu mënti doon rek incha allahu rabbi di ngeen ko mën a am ci wasaare TV ñu ngi di jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi jërë ngeen jëf